Ismaahuddin Aydara Chérif Aydara yooyu itam ñu ngi lay nuyu Chérif Ismaahuddin Aydara ni ñu koy defee woon fii daaw def ko daaw jéeg ak daawaat ak at yi leen jiitu yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala mayati nañu ren ci sa ñaan bu yàlla nangu ak samaam yonent yàlla moom alayhi salaam ñu dajawaat fii di defaat sunu conférence bi Cherif boo amul woon mbuur mbuur wuti la ci yow laay jëkke ndax maa ngi yow 40 ans ñeent fukki at ci wàllu diine gàmm bu mu mas a ca mbuutu ko loolu maa koy organiser yóbbu ko ci préfet yi ministry réunion yi CDD yi ba pare sax man maa yële gàmmu ma ne leen sama gàmmu ga bés dàngam la kon lu ma profité wax leen ni gàmmu ga le 11 mai la buñ ci yàlla yu bok fekkee jam inshallah le 11 mai. ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو ميوعة فاستوي وهو بكفؤ الأعلى ثم دنا فتدري فكان قاب قوسين أو فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأي أفتمارونه على ما يري ولقد يراه نظرة أخرى عند سدرة منتهي عند جنة المأوى إذ يغشى الشذرة ما يغشى ماذا غفصه وما تغي ولقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم ذات والعد ومناة السادسة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ورضا الخالق المنان عن صحبه الصديقين الصادقين ورضي الله عن أشياخنا وعن والدينا وعن جميع أهل الله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk jullit yi maa ngi leen di nuyu كباتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودي كورجي جابولين جن فينيو واي كورجي نك جسني بخلي جان قرآن كلا يخلي كورجي متينا دم يك ndeysaan nañ koy génnewee ma xam ne koor gi moo leen njatt abbas bi ma xamoon macha allahu ak ba tuuris ba daan way doo mën toog waaye bu yuuxoo nga xam ne koor gi jàpp na ko maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp te leen ziara di leen ndokkeel di leen balu xaq di leen bala di ñaan yàlla nanu yàlla may fekki ku déwén ci barke yonent bi Muhammad wax leen amiin nga doon fekkee fekki wuñu yàlla na yàlla jéggal leen yàlla na yàlla yërëm leen jàngal nañ leen kaamil Qur'an incha allahu balaa ñoo jóge ci tant bi daañu jàng jàng xatba bi bu soobee yàlla ñoom it. yónnee leen seen ndogu seen ziyaara seen wàll ci daje bi maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp nag di jaaree nuyoo bi ci ahlu bayt rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax yonent bi moo waxoon ni na ngeen di jiital samay njaboot bu leen leen di mujj Cheikh Abdoul Wahab laa nuyu la ziyaara di dalal ci jàmm di am mbégte kontaan te fekk la fi di la ñaanal yàlla ak da sàkku yàlla di ñaanal di nuyu suñu nijaay Cerno Baro di ko ziyaara di imam bi ak bu nekk mu ñëw jëmmal ñu sagal ñu yal yàlla guddal fanam di ko nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla noonu la ñuy nuyoo El Hadji Mouhamad bu bàyyee ko Ndakaaru ñëw fii ngir yàlla ak wéttali njaboot bi ah nijaay yàlla na yàlla fay la yiw nijaay bu nekk neex na waaye nijaay bu baax gën naa neex ñu nuyu la ziar la ak sarak Cheikh Ibrahim eh, Niang moom ñu miin ko bu baax don la fi wutu ci taxawu njabot bi ci dëcc yaag tuddu yaag ñaani yaag sarax yaag kaamil yi saa yi ñëwoon fi fekk ko fi mu wutu la fi taxaw fi taxawaay bu mëte ñu nuyu ko ziar ko ñaanal ko yàlla noonu la ñuy nuyoo fa tabarakallahu El Hadji Makhtar Samb borom mbuur moom dafay bokk ci mbuur démb bi boo déggee muy wax rek xam ne xamoon na magi démb yi waaye xam na yi tamit magu tey ak ndaw tey yi di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu sañ Alioune Thiam ñoo ànd mu bàyyi liggéeyam ànd ak ñun yàlla fay ko yiw noonu lañu ñu nuyu Sayid Alxaaj Abdul Aziz Dabaax Mbay mi moo fi andi télé bi di Aïnou Mady TV mu bàyyi ay programme yu bari maa ko ko wax mu ne ma dinaa ñëw jël si image ma ne ko mësta am image yu fa des te man damay bëgg soxla su weesoo ma xam lan moo fa ewoon daaw pour su ma ñëwaatee di waxtaan ma xam fan lay jaar ak lu ba waxoon daaw lan la woon bii yoon moo ko ko mu ne ma dinaa bàyyi yitte yi ma ñëw jëlsi ko te télé la boo xam incha allahu dafay dem directement ci internet bi foo ne ci adduna bi daal ko mën seetaan muy télé boo xam ni sunu mag sunu sëriñ sëñ Habib Sy mu sëñ Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu moo ko jënd teg ko seen loxo ne na ngeen couvrir bëccëgu diine yi ñu taxaw ci taxawaay bu mate yal na yàlla fay yiw ak tëgg sa mu àndal waaye su ma nuyoo kilifa yooyu ngeen baal ma ma nuyu suma yeneen kilifa yi suma yeneen yaay yi mama Aïcha Guèye mama euh, Mbodj mama Aïcha Mbodj mi nga xam ni moo nekk présidente mouvement bi mu baax lool moom moo njëkk dajale sunu yaay yëpp ci këram ab tàkkusaan ma ñëw fa ñoom ñëpp ñu ñëw macha allahu boobu jamono sawar nañu te ëppoon nañu ni ñu faatu yal na yàlla yërëm leen na yàlla jéggal leen ma ñëw dafa leen waxtaan ñu ne ma dañoo bëggoon ñun Cherif suñu mbooloo mi bañ tas ñu ànd rek di bëgg sa maam di bëgg sa maam ba li des suñuy dund ma ne ko incha allahu may taxaw pour wéttil leen ci loolu ma may fi conférence ba bëgg léegi ay at la ëpp na fukki at mbaa jege na ko at bu jot ñu def ko ba corona yi ñëw ñu arrêté ko digënté bi am ci sëriñ mayu wàññeeku ku melni ni mm, aja wàññam na ko yàlla xare aljanna ku melni ni ki mama kanni jog na ko yàlla xare aljanna ku melni ni ki mama aida samb na ko yàlla xare ba ci musa fall mi nga xamné ma ngi yore potom ni ah mi ngi fi aha ko gis yal na yàlla yokk yal na yàlla fanam yokk wéram faal mii daawu fi jóg ah mu ne sëñ Diouf waaw ak ak ak Adja mi sëñ Diouf moom it na ko yàlla yërëm jéggal ko xarit ko aljanna kan kan kan la mu no kan sekkan waaw jërëjëf kan kan dëgg la kan la te kan mii fi sama wet sama ndeyjoor at yu bare bare bare bare bu ñëwul rek wéxadi mbaa tukki mbaa leen noo ko téye yal na yàlla def ci jàmm na ci barke yonent bi alayhi salaam ah, maa ngi nuyu nag mbooleem mama yi mama bana kan di ko ziyaara moo ma jox photo bi léegi fàttali ma ko di ko ziyaara bu baax a baax a baax moom doomam di son fat si di nimsat dañuy jox ko saa su nekk ci biir mouvement bi moom adama gay hmm? ak maire binta jéy non la ah di fama jéy di fama jéy wa di fama jéy yalla na ko guddal seen fan ngeen yag fi lol di ñu ngi ñu la di ngi ci barki yonente bi alayhi salaam yàlla mën na ko yalla nako yalla def Eh, di nuyu suñu mbokk yi sayid ngañ ma ngi leen nuyu leen ziara yàlla mbokk mi ngàndal leen dalal ci jàmm fokk ngeen may dimbale nag ndax li téye gars yi ci koor gi xaw damaa téye Mamouri waaw Mamouri ka sa ngañ fokk ngeen ma jàpp xam nga xam nga eh, gaynde dafa feebar gaynde rabu àll yëpp seet si ko ba mu des golo bukki ñëw ne ko yow golo fonk la respecté wu la ndax ñëpp la seet si fii nga tëdd nii sa o mu ne ko saa yoo ko gisee rek buñ teewee nekk mu ñëw soxla naa ko mu wëri ko ba gis ko waaye diggante bi boolekat yi gis nañu ko ne ko kay ne mere na ndax bukki moo leen boole nee na fii ñëpp fi ñëw seet ko sa yow ne fonk loo ko respecté wu loo ko ah ñu jëli golo andi ko ci kanamu gaynde gaynde xóon xóoni nekk lu tax ñépp seet si ma seet ma mu ne ko diidi gaynde ba man déggee da ngaa feebar man dama demoon uti ay garab pour la faj man ay garab la wuti woon di mu ko ah waaw ay garab laa wuti woon pour nga jóg ndax yaay suñu buur ayyuhal malik al muwaqqar kuntu fi talabi dawa li ajlik garab laa wuti woon pour yow nga wér mu naam maada xasalt ayu cheyin جيت بي لو جس لو عندي ولا تجرب ولقد لقيت بي أبقري أطباء فأخبرني بأن دواءك ستحصله من ساق الضب بجناك بجناك بين مرسين بجنو آيت مرسين منما يلو bukki boo ko soccoowee rek da wér mu ne ko xaar mu ne waaw mu ne bërët mu këf yenn bukki ne ko bukki fëf daw rawale ko fam waaye yell moom gis na fa mu génn ak mititam ak yu xom golo nekk ko so bëggé dund ci jamm da ngay bayyi deru bari so bëggé dund ci jamm da ngay bayyi di wax ci gannaaw nit lu ñaaw so bëggé dund ci jamm da ngay yéene ñëpp jamm sa yéene nga bon bu këpp sa kaw eh, ak wax la woo xam ne ku nekk am nga ci wàll سيدنا علي كرم الله وجهه بمبوك بني وي نكو تي واخ كو تي مبوكم لو نياو باغال دافكوني ان كنت صادق وفكي واخ كتو دغنغا خمالني war nañ la door téméré yar ndax wér nga gor yàq nga rey moo jaadu ci yow léegi nag tànnal ñaar yooyu ban ci nga jël ñu dóor la futti la ndax da nga yàq dara gor mbal la ñu rey la benn ci du jàmm mu ne daal njëggal lay ñaan lay ñaan mu ne ko bu dee natt naa la seytaane nga yow yàqkat nga waaye yelloon na kilifa yëpp mel noonu ku ñëw ci yow di yàq deru keneen nga woo ko mu teew mbaa nga yemale ko comme moom ñeme na yàlla ba yàq mbindeefu yàlla yi ak diggante yi te waroon koo defar yow nga ragal yàlla ñeme seytaane yemale ko nga am courage boobu nga ñeme nga ragal yàlla ñeme seytaane am courage yemale ko Eh, dama bëgg waxtaan ak yéen ci dund yonent bi tuuti balaa boobu bi ñuy takkee seetlu àdduna fekk nañu kaburatil manazil wa saghiratil usar kër yi rëy na lool étage yi kawe na lool waaye famille yi mi ngi gën a néew kër goo dugg tey tuuti nit nga fay fekk wala bu ñu wootee faño bi tuuti mooy daje te bu njëkk soo laalee kenn ñëpp teew ñi jege ak ñu sori ñu bokkoo booloo def benn say ba kenn du leen ñemiñ loolu moo amoon démb nga dugg ab kër fekk kër ga fees dell famille bi ngay dugg par néeg gis fa bàjjen gis fa nijaay gis fa rakku yaay gis fa mag kër gi fees dell fa tabarakallahu ba mel ni këru sama mbokk lébu yi tey boo demee kër yëpp gent na ay néeg fay fekk wala ay jàmbur mata taxaw seetluwaat gis ne tatawar ci tëbb wa saati sixa ci wàllu médecine tey la jumtuwaayu médecine gën a bari tey la jàngoro gën a metti tey la nit ñi gën a xereñ ci faj tey la garab gën a bari mais tey la jàngoro gën a metti gën a bari te bu njëkk garab bariwut woon mais jàngoro méttiwul woon faju méttiwul woon ma taxaw seetluwaat ne balax na al wa jahil na al jaar yitte doomu aadama àgg na ci dem ba ca weer wa dëkk ca weer wa dem ci kaw waaye ña xam ak dëkkandoo lu néew ñu ngi lijjante jéem a xam li ci kaw planète bi ak weer bi te lijjantewuñu xaq dëkkandoo lan la ci yént bi jàngale ak lu ci yàlla jàngale ma gisaat nii zaadal maalu wata laachat raaxatul baal am am mi ngi yomb léegi koo gis rek xale ak mag yor na portable bu bon jar cent mille deux cent mille te bu njëkk benn yére moo amoon ci kër gi kuy dem xew danga koy àbb bu ñëwee fóot denc ko kuy tukki danga koy àbb tey koo gis muy dem la mu yore portable am ak la mu yor sol ëpp na cent cinquante mille kon comme am na néeg boo dugg fekk fa meuble bu jar un million ba salon kon am na te tey la nit ñi gën tiit tey la fit yi gën a dem tey la nit ñi gën a tiit ci wàllu am-am soo gisee xale yi ni sàccee au champ yi ak boutique yi ak ni ñuy agressé nga xam ñii dañoo tiit lan moo waral boobu tiitaange lan ma ko waral ma jàngat ko mu gisaat ni raaxatul baal te la chat dafa disparaître xel mu dal dafa disparaître néew na kuy dund tey am xel mu dal lu néew la mu gisaat ni zaadatil maarifatu wa tanaqashatil mashaa'ir xam-xam gën naa bari kër goo dugg am na borom doctorat mbaa am na borom maîtrise ba am na borom xam-xam mais yëg-yëg amatul léegi xol yu wow ñoo am ci doomu aadama yi mu jaaxal ma wa tanawwatil saat wala najidul waqt koo gis muy dox am na montre wala am na téléphone bu am heure ñëpp te kenn fonkul heure koo gis buy dem rek am na xam na heure bu jot ñëpp muy man muy yéen mag ak ndaw ñëpp yor montre léegi ñëpp yor lu xam waxtu waaye kenn fonkul waxtu kon lu waxtu jëriñ bu njëkk benn montre moo fi ne woon te kenn daawul tardé waxtu julli ñëpp bay daje jullikaay ba julli bu njëkk boo wootee ñëpp ñëw ci waxtu woowu te tey koo gis muy dox yor na téléphone yor na montre waaye amul heure boo ko woowee huit mu ñëw dix lan la lan la montre yi jëriñ mu jaaxal ma ma taxaw seetluwaat kaanatil bu yuuti من الخطب والحوب والحشيس ولكن سكاد المندل كادت قلوبهم من الذهب بوجي كان كريه بن لاور ولا براك ولا صحي نيغو نياخ نياخ واي ني دكون سي كريي سن خول يي جمال لاور اور لاور عليكم السلام سي برام جي جي جي جي جي فيو نور ديبيت ña dëkkoon ci kër ya seen xol ya or la woon jamaa la woon di fanaan ci néegu matt néegu bant barak wala néegu ñax mbaa néegu zeng fekk yow sa xol bi or la jamaa la tey nag ma seetlu kër yi or la waaye lu bari ci ñay dëkk ci kër yi xol ya xeer la bawoo kooko di tëdd ci lal woo xam ne jamaa la te xol ba nekk përëm moo gën a bari di fanaan ci lalu or mbaa lalu jamaa fekk boroom xol bi moo gën a ñuul weñ wu ñuul magda imshi ma seet loolu nag ma ne xanaa dañoo bàyyi yonent bi xanaa dañoo réer yonent bi moo tax loolu dal ñu yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo fekkoon lépp tilim ba àgg ci lool yàlla dimbale ko mu yeesalaat lépp ba lépp yees sallallahu alayhi wa sallam moo fekkoon jamono tilim lëndëm ba ko jur doom bu jigéen danga koy rendi da nga koy suuf jamono yàqu woon ba ku am soxna bu jëkkëram faatoo kenn dootu ko denc jaam lañ koy def dañ koy donnale def ko jaam bu fekkoon jamono nit ñi di lekkante ci wàllu doole ak pexe foo xam ni xel mënu koo tasawur mënu koo xayma ndax ni mu ñaawe woon jikko yi àggoon foo xam ni même bàyyi ma sax ngeen jéggal ma ci boobu wax àggul woon foofu ci wàllu jikko yu ñaaw yàlla yónni ko ne ko demal ci ñoom defar leen demal ci ñoom nga yedd leen nga orienté leen demal ci ñom nga war leen waye man sa borom mi la yoni ma lay jitu ci ñom sallallahu alayhi wasallam ana abbas man mi la yoni ma lay jitu ci ñom sallallahu alayhi wasallam motax amna tax am benn bëccëg yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di doog di woote di julli di ñaan boromam ci boru kaaba gi aba jahlin arsala ashqa nnaas aba jahlin yónni ki gën a taxee di ki gën a bon ci doomu aadama yi na dem ci boucherie ba mooy fi ñuy sànni butit yi ak sibrit yi mu jël fa benn butitu giléem bu ñu rey moom ñetti fan ba semaine ñu tëye ko ngeen baal ma sax yi daanu ñu ñëw fekk yonent bi fu muy si jot ñu teg ko ci kaw sallallahu alayhi wa teg ko ci kawam taxul mu siggi mu continuer sàbbal boromam mais yonent bi li yéeme mooy dara taxul ci moom benn sax laalu ko ben sobe lalu ko sallallahu alayhi wa sallam xana yéegoon yonentou bi weñ dawul dal ci kawam cheikh samam weñ dawul dal ci kawam mumtare yonentou bi alayhi salam sobe musul dalu ci kawam bu yegone fas wala gilem du nefere du saw du da fay yaru sallallahu alayhi wa sallam taxul mu siggi mu ko di sëgg rek mu siggi pare na yàlla maa ngi lay gërëm di la sant yow mi nga xam ne yow yaa yelloo cant ak ngërëm ma lay jaamu di la kañ di la sabbaal nga yebal say jaam yu may yii ma doyadal nga dox sama diggante ñoom sallallahu alayhi wa sallam moo tax kilifa foog nga yàq dënn foog ngay muñ foog ngay jéggale foog ngay jëlale kilifa jullit ku roy bi xoolal bi jikko ci mbooleem mët ba sallallahu alayhi wa alihi dajale woon na ko tey nag yonent bi Sénégal biñ toll daa mel ni jigéenu senegaal dañu bëggee yonent bi moo raw góor ñi dafa mel ni loolu Hah? wala yàlla xam sohna soxna aji géey mag leen nuyu baax la ziyaara su ma la nuyoo nag damay nuyu mbooleem njabootu yaawa yépp teg ko sa loxo dafa ni nyoyore jigéen ñi ñoo yore nos bi ci bëgg yërënt bi bi ma président da daan liggéeyal di korrotal, di ko raxasal ba nekk mag ba am doom am soxna di ko def ma ne ah man aasha xaadiman taxta qadami ummihi aasha saidan aasha raisan aasha fawqa ruusaai ahlu zamanihi ku ndaw lu liggéeyal sa ndey ba mu gërëm la nga nekk mbindaan di ko liggéeyal ba mu ñaanal la ku mu neex ku mu naqari da nga yilif say nawle loolu moom amul sax xaar ma ni ñu am kon li mu am loolu dong doyoon na ci waaye ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla ko ba mu am ci ndam ci la mu def di ko ndokkeel ci loolu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bés jot na benn miskin ñëw ci moom ne ko yaa rasulallahi ay fan lekkuma te awma lu ma sol yenent bi alayhi salaam gestu ne Xadija wala Aïcha kenn la ci ñoom rek ayna abaati allati aataytuka iyaha bil amsi ana sama abbaay bi mu la joxoon dénkoon démb babati démb mu nekk mi ngi ci biir nekk fa atii biha andil ma ko mu àndi ko yenent bi jox ko miskin bi ne ko am yàlla jox lo waji génn dem ci marché bi def vente aux enchères ne man yishtari aba at rasulillah ana kan mo beug ma jay la mant yenent bi mant ma jàllaab yenent bi kan ci yéen mo beug ma jay la ma wan ter la abaye yenent bi am ko ne bëgg naa ko dix mille am ku ne vingt mille mu def ci affaire def vente aux enchères cinquante mille keneen cent mille deux cent mille trois cent mille am na ab silmaxa bu ne ci marché bi bu woo jaamam ne ko ida xadarta lii abaata rasulillahi mahma mahma alat acher fa ati biha fa anta xurro soo ma andilee ab bàyyi yenent bi lu mu cher cher nga fexe ba andi ma ko ma goreel la man maay fay lu mu cher cher fayal maay fay te boo ko jëndee boo ñëwee ma goreel la gaa ñi fay fay fay bi ci un million mu fay deux millions gay naa benn ab bàyyi deux millions ñëpp xàcc mu jënd ko yóbbul ko sangam ne ko haa am ab bàyyi mu yuuxu jooy mu taf ko ci dënnam mu fóon ko barkeeloo ko waaye bët yi ne xefeet leer nañ ci saasi ras-ras yi woon ci kanam yëpp dañ la mu yëgoon ci màgget beeg di noy yi muy dañ tension yi yëpp dañ moom melaat ni xale bu góor bu sport sportif mu ne way kii dee kéemaan la rek mu yuux génn génn génn butikam jëm ci kër yonent bi ne ko ilayka ya rasulallahi haada abaataka bi barakatiha radda allahu ilayya ne rasulallahi sa abbaaya ngoog de sa yëree ci barkeen yàlla delloo na ma samay bët delloo na ma sama kantan إليك يا رسول الله sallallahu alayhi wa sallam xanaa bëggu leen ko julli leen ci moom sallallahu alayhi wa sallam mu agsi ñu jox ko mu xool ni abbaye bi nees kay Aïcha unzuri abaati qad raddaha allahu ilayya xool sama abbaye bi yàlla joxaat na ma ko wa qabla an يرد إلي أو يرد إلي قد شفيت المجنون بلا نيوات من قد شفيت العامة بلا نيوات من فجن سلمخا بلا نيوات من أغنت الفقير كو جاي اباي 2 مليون ام بوتيك ولا دوت لو يلوان ام فون دو كوميرس من خول عباءتي قد قد اعتقد اعتقد العبد سما عبا يا غورلنا ابجام بيكو واجي اندي دنج كوب غورل تي بن بن بن وقت ابا يا بي ген سركله صفينا اب فقير مليونير غورلنا ابجام سافرنا اب سلبخ كي مي رسول الله léppam barke la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sang boobu nag Chérif waxuma la sax ku muy sa maam waaye ku muy sa soppe mbaa sa yonent noo war a mel kan nga war a doon ndax jërëjëf ñag s yàlla na ko joxe déwén ku muy sa maam mbaam muy sa yonent na war a mel yonent bi nga xam ni mbooleem yonent yi kenn ku nekk yàlla wax na ak yow nee la ee eh, diw ñenn ñi ñaan yàlla ci ay maqaamam ñenn ñi yàlla ne leen ee eh, diw sauf sayyiduna muhammad mosu ko ne ee eh, diw ndax ay nit du ko wax kilifam yàlla moo yilif ñëpp damay joxe misaal rek ñun ci suñuy biir sa baay doo ko ne ay sa ndey doo ko ne ay diw walla même sax sama mbokku xalpulaar yi sama nijaay yi seen mag duñ ko ne ay diw dañ ko naan déedee déedee grand frère grand frère même français دوخ ايديو مسي لا يخ مسي السيد مي بلوك توي ايديو يالا نك مو يليف نيب محمد صلى الله عليه واله مسكو ني محمد يا محمد ان يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه ان يا ابراهيم قد صدقت رؤيا ها يا يحيى خذ الكتاب بقوة لأن يا زكريا إنا نبشرك بغلام ها اسمه يحيى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يرنت بو نيك وونا لا ci sa tur ne la eddiw day mudde Seydina Muhammad yonent bi da ay ay melo yaa ayyuhal muzammil yaa ayyuhal mudassir yaa siin ee yow nit ku mat ki nit ku sell ki nit ku taaru ki yonent bi ne labbayka rabbi wa saadayka borom bi wuyu naa la wal xayru kulluhu bi yadika yiw mi ngi sa loxo mu ne ko wal quraanil hakim giiñ naa ci alquran gi ma xareñe mu ne ko borom bi nuy giiñ mu ne ko innaka laminal mursalina yow muhammad alayhi salaam man sa borom maa la yónni bépp yonent bu yàlla yónni koo koy dem ne inni rasulullahi ilaykum man yàlla ma yónni ci yéen wax ba sonn ñii gëm ñii weddi bee mu des sayyiduna muhammad yonent bi yàlla moo ko de man maa la yónni لمحمد رسول الله صلى الله عليه واله نيت واه واه دك لا لا دك لا دك لا دك لا قد خلت من قبل قران يب تيوي نيت يم تدو يب دون دون باج ني ني يالا تدول يونت في القران كون سو بوبا dañam buntu waye sagal nako yalla jëf yaay sagal nako tuddu ko ci anam bu rafet sallallahu alayhi wa alihi motax ma ne ko ya man sakana al fuad fa ish hanian hanian ya jasadi هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد أمسيت في كنف الحبيب ومن يكن جار الحبيب فعيشه عيث الرغد لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم لكان أول من سجد أو رأى نمروذ نور جلاله لعبد الجليل مع الخليل ومع نفس su yonent bi dëkkee sunuy xol am nañ chance dañuy sant yàlla da ngay dégg diw mo ci nek sama xol ya ci fess waye ñun suñu xol sayyiduna muhammad mo ci fess sallallahu alayhi wa alihi même suñu serigne sax dañuy nek deuxième ou troisième position mais première position sayyiduna muhammad la suñu serigne yoyu ku ci xëy bàyyi yëneent bi ñu bàyyi la fonk nañ leen lool sàpp nañ leen lool waaye ku xëy woon yent bi gannaaw ñu won la gannaaw ak ku la jur kon dañ laa topp jàpp la ngir yent yàlla muhammad di nga sopp ak ba ngay liggéeyal bés dama am gan mu ñëw sama kër ma takk sama ndigg di ko dalal di ko bernde su ma benn élève di ma xool bu ñu wax kalidu bind ma benn kayit نما ألست بالشيخ قد قضى كل يومه بخدمة بخدمة شيخ ذي التوقير في الأمم نحن نكو سرين جاسين سرين يولي يخول مي يو جس نجولا نتك سندق دي لغي الكلفة بي بامل نيو نكتلو ما كيد بنكوا بلي نعم لن أذال بخدمته ما دام يخدم النبي محمد دي. ma ne ko balaa ngaa yërëm sa pataron dangay ngay xaar ba pataron ñëw du ma dañ di ko liggéeyal fekk maa ngi ko gis muy liggéeyal Seydina Muhammad et tant que mi ngi liggéeyal yonent bi maa ngi koy jërëjëf jërëjëf tant que mi ngi liggéey yonent bi maa ngi koy liggéeyal waaye bu noppee liggéeyal yonent bi ma dem liggéey yonent bi ma liggéeyal yonent bi alayhi salaam ak koo mën a àndal contrat bi nekk seen diggante na xam Seydina Muhammad mu fonk ko bul gëmm bu ko ragal ragalal yàlla mais boo gisee mu topp yonent bi téye ko ba mu dëgër ngir yàlla yonent bi ak li ko yàlla jox ci ay responsabilité ak ci ndombal tànk toppal ci gannaawam xanaa xamoo bi yàllay wax malaaka yi na ngeen sujjóot ci aadama su iblis gisoon leeru yontu yàlla muhammad alayhi salaam mooy njëkk sa jóot mais ñàkk gisam leeru yonent bi moo teewal iblis su mais bu gisoon leeru yonent bi ci jéewu aadama mooy njëkk su jóot namruuz bi doon jéem a lakk mam ibrahima alayhi salaam su gisoon leeru yonent bi moom dana jaamu yàlla ànd ak maam Ibrahima kon ñun bu ñu dundee ba bokk ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi e waxuma ñu bokk ci xetam waaye yàlla dimbale ñu ñun ñu xam yonent bi alayhi salaam ñu sante ko yàlla kii nag daa bëri coow de bii daa bëri bruit dana yàq seen enregistrement yi maa ngi ko bëggoon a wax yàlla ustaas ji jërëjëf jërëjëf yàlla fay barakallah yàlla mi ñu dimbale ba ñu bëgg yontu yàlla muhammad alayhi salaam di jéem a def ci moom di wax ci moom di ko jéem a roy ñu sante ko yàlla jërëjëf yàlla moo ñu wane laqad manna allahu ala almuminina id baata fihim rasula yàlla nee na moom moo wax mu ne xéewale naa ñi gëm yàlla may naa teraanga ñi gëm yàlla sagal na ñi gëm yontu yàlla muhammad ma yónnee leen sang bu ñuy wax seyduna muhammad mu bokk ci ñoom di wax samay wax di leen won yoon wi ñuy jaar pour te yàlla bind leen ngir yontu yàlla muhammad xamal leen leer yonent bi yonent bi di leen xamal yoon bu ñuy jaar pour texe kon ñun lan lañu amal yonent bi arab ba na man ahsana ilayka idha ahsanta ila man ahsana ilayka barakallah fa anta wafi khafi wa in anta axsanta إلى من لم يحسن إليك فأنت كريم وإذا أنت أحسنت وإذا أحسنت إلى من أساء إليك فأنت مؤمن أها ku la defal teraanga nga fay ko teraanga yow da nga am kóllëre waaye koo xam ne kii masul laa defal teraanga nga xëy defal ko teraanga da ngaa tedd moo tax da nga tedd moo tax ku tedd dafay leb di teraanga du xaar du fay teraanga day leb di teraanga fu mu toll waaye koo xam dafa def lu ñaaw jëme ci yow waxal la lu ñaaw nga jël lu rafet defal ko yow yow weesu nga tedd weesu nga am kóllëre yow jullit nga kii mooy jullit baatu jullit tuuti ci maqaama yi gën a rëy ci la bokk mooy muumin mu gën a foor sax nekk waliyu ndax balaa nga nekk wuli yu foog nga nekk mumin d'abord yàlla mboolem yu baax ya mu joxe mi ngi ko jox al ni ñi gëm yàlla nekkal mumin ku gëm yàlla su yàlla amee luwaa bu muy bi muy bi muy tekk ci kaw kan la koy teg kaw muminin kutiba aleykum lu am yi du yalla am te mu bax daf koy jox julit yi gem yalla ba baatu mu'min c'est très important lepp rek du taxaw pour yak lolu lolu sa non la motax ñet ñett la yentu andi te moy al iman al axlaaqiya al mabadi iman nga moy ngeum yalla ka nga ñongal ko bul nangu dara yak sa ngeum yalla ndax bo geumut yalla rek geum keneen gëm leneen soo gëmul sidina muhammad alayhi salaam doo dara benn mooy al mabadi nga am principe jaajëf nga am principe mabadi principe lan mooy principe mooy ku la gis xam ne yow am nga gëm-gëm sàmb alhamdulilah sàmb sàmb nit yi sàmb macha allah شكرا لك سامبو بارك الله <coughs> جلال جلال بارك الله تفضل والله دي سام والله والله دي لا ديكو باخ نا بروم كول ري واخون نا ما غودي غودي غوغو امات يارم بي سودانتي با لول صاح ما تانسيون بي خوانا يكتب moo tax ñëw woon wallaay dëgg la waaye Muhammad leeru yonent bi falaa yura illa bi illa bi taxsiisin min al fardi samat leeru yonent bi ku yàlla mayut doo ko gis doo ko bëgg may yàlla gu foor mooy tax nga bëgg yonent yàlla Muhammad ku la gën a bëgg yërënt bi gën laa sell ëpp la maqaama mag ñu baax ñëpp Cheikh al khadim waxam yooyu wa baana li kulli aqilin aw maqulin anna wasilati huwa rasul na leer ci ku am xel ne man sama sang ki may jokkale ak yàlla ma Seydina Muhammad bëgg na ko kenn waxatu ko شيخ الخليل cheikh Sidi Hadj Malick si kadalika cheikh Umar Fuutiyu moom nee na bëgg yonent bi mi ngi sama biir deret samay yokk samay lépp bëgg yonent bi la samay noyyi bëgg yonent bi la mooy moom daa bëgg yonent bi moom cheikh Umar Fuutiyu daa bëgg yonent bi ba du wax sax taarix yonent bi ndax taarix daa bëri werante dafa bëri ta werante te bëggul wax ci yonent bi lu dul dëgg bëggul sosal yonent bi te ku wax taarix rek mën nga wax loolu dëgg ndax ñaari wax ñetti wax yu bokkut am na ko waxul dëgg wala ñu ne yonent bi alayhi salaam ñii ne mi ngi gën àdduna fukki fan ñaar ci weeru gàmm ñii ne fukk ak benn ñii ne fukk ak ñett ñii juróom-ñaar am na ko waxul dëgg kenn ma ci wax dëgg fekkewuma nag man yonent bi duma wax ci moom loo xam ne wóoruma fa la ci fel mën a yem fa la fonk mën a yem mu fekk ñuy wax ci yonent bi ñu ne yonent bi alayhi salaam soxna Aïcha la gënoon a sopp ci ay soxnaam mu ne loolu ëpp naa wax loolu xeetu doy di la sang ci këram ñuy lijjante kan la gën a sopp yow yaay kan est-ce que yow bokk ci njaboot bi est-ce que yow njaboot nga ban doom ban doom bu tekkiwul dara mooy na ci kër baayam ndeyam am ay wujj muy lijjanti baayam kan la gën a nopp ban doom bu ñàkk bopp muy lijjanti loolu te doom laa wax de waxuma la yonent doom kese ban doom bu alku mooy lijjanti sama baay sama tante la gën a bëgg sama yaay wala sama yaay la gën a bëgg lu ci sa yoon waxuma nag sayduna muhammad te loolu amut matu yonent bi alayhi salaam ëpp na loolu te wax yooyu bind nañ ko ustaas yi di ko jàngale te nekkul dëgg wallahi du dëgg ndax bokkul ci jikko yu rafet am sa njaboot te yemale woo leen te yonent bi moom la yàlla wax ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin jikko yu rafet yëpp yu mat yëpp yu taaru yëpp yu sell yëpp yow rasulallah ya ca gën moom nga moom nga mel yàlla wet gi na ko waxal ci moom lu nekkut am ñu wax ne yonent bi muhammad alayhi salaam doon na waxanteeg saxaaba yi ba jékkee ñu ne ko dañuy diisug yow mu wax am ñu wet di ñu waranteeg moom ba jibril ñëw ànd ak moom lu dëgg السيونة وصل دك وخ الأمر الشعرة بينه نيسلام نيديسو ينتبه وخ قايو يدكو كوكو دفرنجي ننجر يلا موكو وخ نكو فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما fala wa rabbika giiñ ñaa ci sa borom yow muhammad giiñ ñaa ci sa borom ne saxaaba ya jullit yi du ñu gëm yàlla mukk lu mooy yow la ñu atte woo déglu la ci mbooleem looy dogal ak looy def yow dong la ñuy dëgg déglu loo def loo dogal loo wax doy na leen du ñu werante du ñu am xel ñaar te nag boo jé boo attee ba noppi

directement mu wax ko li gën te yàlla du wax waxeet ah nee na nabiyu naa fii yéen ci yàlla muhammad al amiru mooy kiy digle di ko jëlee ci ndiggalu yàlla ak naax yi mooy tere lu bon di ko jëlee ci tereg yàlla ah abarra ah amul kenn koo xam ni daañu ko lëkkale yit yàlla muhammad ci la muy digle mu baax comme ndigal yonent bi mba la muy tere mu bon comme ni yonent bi tere lu bon yonent bi lu mu tere lu bon la du baax moko waaye lu mu dit lu baax la motax cheikh al sada bihi moom sët la waaye wax nako احب رسول الله سيدنا حبا لا تقاس والبلد جوخكو baladu jox ko micro bi maag moom ñu am ko mu benn benn ko ma benn benn ko dañoo woor ñu ñëpp nag am naa bu méttee su ma dogee sama koor kenn du ma jàpp يقول سعد الحبيب مثل يلا تاسو تي بركم فيكو يو تي يقول سعد الحبيب شيخنا شيخ سعد أبيه موخ لي كي رسول الله مثل دليك شيخ نشيخ سعد بو دوم لتي شيخ نشيخ محمد فضل خولت أجدي لها شر ولا فلد wax ji mu bëgg a wax waxu dëgg la du waxu propagande inni uhibbu rasulallahi sayyidina mu ne wallahi man saadu abihi bëgg naa sang bi sayyidina muhammad xubban taqaasara anhu almaal wal waladu mbëggeel gi nga bëgg yéen ci yàlla Muhammad nag ne bu leen ko jéem a xiyaas di ko jéem a lëkkaleeg nit na muy bëggee doomam mbaa alalab déedéet wala sa ah yablugu miqdaara mahabbati mu ne bu leen jéem a lëkkale ni nga bëggee ci yàlla Muhammad ak nit na muy bëggee alalam mbaa doomam soo jëloon nit ni ma bëggee ci yàlla Muhammad mbeugel bi nga xaj ko fukki xaj jël ben xaj bi xaajat fukki xaj jël ben xaj bi xaajat fukki xaj bo muy fukki yoon moy mi'shar fukkelu fukku li ci dess mo raw fuuf ku nek da nga bëggee say dom ba salal sara doom mbaa wal alal ni ma bëggee yent yalla Muhammad gatchel na bepp xetu mbeugel ni ngay bëggee sa dom ba salal ولزم مخشى wax waxoon naa la ko kenn mënta qiyaas mbaa xayma ni ma bëggante yàlla Mouhamed amul. mu ne sax nit ñi ni ñuy bëggee aljanna mbaa wurus mbaa du ñuy bëggee ay jong ma mu ne ah wala bëgg siiw bëgg bëgg daraja ni ma bëggee yonent yàlla Mouhamed gàcce na loolu. أشهى إلى نفس الليلة ودرتها ديم بمكني داني جيل ليلى داف جيجين فك ليلى ادونا لا ادونا نيكو نيت ني بيغي وون فونكي وون دون سون نخ ادونا دا دا فا خيوون ليلى جاري جف دا فا خيوون ليلى اك قيش قيش دينا غير مبيغي لام سي mbooleem ñiy jàngale arab jàng ay ah, arab yi yéem na leen cofeelu cofeelu Aïch ci Layla ndax lan dóor nañu ko yeew nañu ko xañ ko mu lekk tëj nañ ko toroxal nañu ko mënta bàyyi Layla daa mujj sax Layla ak waa këram ñu toxu ci village bi demee na dëkk saa yu xëyee dem kër gi ñu dëkkoon. di di di di direeku ci kër gi di fóon suuf biiru kër gi di fóon miir ya di fóon suuf sa di ko maq bu ñu ko rombee de ko xoolal xool dof bi xoolal dof bi lay daal dëkkatu fi mu ne aha baytu ba baytu ba amurru ala diyaari diyaaru layla uqabbilu zal jidaar wa zal jidaar وما حب الديارة شغفنا قلبي لكن حب من سكن الديارة man maa ngi dem de kër kër Layla di wër kër ga ziar kër ga mu ne bëggeelu kër gi andiwum fa mais bëgg gi ma bëggoon ka dëkkee woon kër ga moo ma fa bàyyi maa ngi foon miir yi di foon suuf si amaanaa fii Layla jaaroon na fi jóge woon na fi amaanaa fii Layla wéeru woon na fi amaataa fii Layla tegoon na fi loxoom amaanaa fii Layla toogoon na fi ma foon fa su jot fa mu dalal sama xel mag ñi nag yéemu ci moom Aïch dafa dem ba ñu rey ko mu ne sant naa yàlla mi bëgg Layla ba dee ci mu ne man dee gi may dee nii naqariw ma ndax maa ngi dee ci bëgg Layla maa ngi dee ñu may mbugal ngir Layla mag ñi nag jël laylaa moomu def ko àdduna def ko waxikaay ne kon àdduna moy leyla ndax aduna kat ab màgget la bu mak yow màgget la xamne da fay rek da fay yore cheveux naturel greffage bestak aduna da aduna màgget la bu monte ay xef ñuulal karaw aduna màgget la bu def ay rosa tak ay long-long aduna màgget la sol ab sipu fek mo mak sunuy mami mami maam ku mu dajal nag te teeyiloo mbaa yaruñu la ak silti biir Muhammad mbaa kenn waajalu la da nga foog àdduna jeeg la ma jànq bu bëgg sëy te boo ko ne je t'aime may la ma raw delloo kàddu mukk waaw ah. jëf jëf jëf jëf jëf jëf jërëjëf jërëjëf yàlla fii jox ko ñu ñëwal ñëwal ñëwal li tool na jërëjëf Diouf ñoo a yëgal gis nga de àddina doo ko ne je t'aime du la gant. loo wax rek raw su milliards góor taxawoon ko je t'aime mu ne d'accord et moi aussi je vous aime Oui. bés boo wiitee ak moom bés bu la nga alku ba faw parce bu la naxee nga alku ba faw te nag nax nañu bare bare bare cheikh na ne àdduna ni ko ñëpp bëggee mu ne na bëggee rasulullah sama maam gàcceel na ni nit ñi bëggee àdduna ak layla ولا تقاربه جمل ولا دعد من عم ني دعدو دعدو يت دعدو يت اب جيكين لا وون دعدو يت امون جامونو moo lëmbi woon waa dëkkam lëmbi woon jamonoom aha comme ni Layla gañee woon marqué empreinte am ci wàllu ay yu mbëggeel daado it ci wàllu jamono noonu la siiwee woon noonu la meloon ci wàllu bayre siiw lool Cheikh Sidi Hadj Malick Sy wax mooy na ko alaa yaa daadu way xaki nabbiini bi dikril baani taxtaanil uyuuni mag ñi doon def xasal di jël yooyu waxin ak ñooñu siiwoon ñu koy jox àdduna ne ñun ñu bëggee rasulallahi gàcceel na mbëggeelu ñooñee ci daadoo àdduna ak àddunaam mu ne waaw ndax am na ku may yedd ndax am na kuy ne déedéet ki ma bëggee noonu mooy gën gi mbindéef wa kay fa ndax am na kenn kuy taxaw dema jaaduwut ndax am na kenn kuy taxaw ne ma dama ëppal kii may bëggee nii kii may xayru xalqillaahi ku yàlla bind moo ci gën axtaahu rabbul wara maa lam yanal ahad te yàlla jox na ko la kenn mësta am la aadama amul alayhi salaam la ibrahima amul te mooy xaritu yàlla la muusa amul te mooy kalimullaa di waxante yàlla la nuux amul la ينت يلا عيسى عمل عليهم السلام كن كنك أمغ أمغ أمغ جمعنا فتولو يلا ما ينت يلا محمد عليه السلام دي أم كن أمغ من المعارف أنا صبي محمد رسول الله وصب سيدنا محمد جبرتها دار صبارا يلا بيلا من المعارف من نور التجلى ومن خرب العلا الذي يشفى به كمد صلى الله عليه وآله وسلم جانغرو لو بوس غراو غراو بوكو وخي يننت بي عليه السلام مو تكي لوخوم داي ملني مستفبر مو نكاي ما جانغال لا waxuma la man sax waaye turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimana biidni rabbina suñu tiflit Laurent suñu tiflit ak suuf si nga xam ne ñoo fa dëkk ñoo suñuy sët soo jëlee suñuy tiflit booleeg suuf sa góom boo ko def wér na jàngoro boo ko raay wér na ndax barke yëntu yàlla Muhammad ay nu xataada xataada dana xeex xeex ba ñu ko fitt bët ba tuuru mu daw ñëw ci rasuulallahi loo bëgg mu ne ko bët ba wér ma continué xare bi mu ray ko bët ba dàq gis sax daf meloon benn waay ñëw ci moom ne ko rasulallahi sallallahu alayhi wasallam kee nee na bu la gëmee garab yële ñoo ñëw gëm la mu woowaa ji mu ñëw mu ne ko loo wax mu ne man maa wax ne su ma la gëmee garab yee ñoo la gëm منكو دمال واخ غرابي اذهب وقول الاشجار ان محمدا ادؤكم دمالتي غرابي نالين محمد رسول الله مولين سخلا ويسلنكو وادي ديكو داغ مي داغ مي كوكولي نكو دمال دمالتي غرابي غاندي غرابي محمد رسول الله مولين سخلا دمال رك غاي نكو يو دمال رك دمال رك مو دم با تي غرابي ني daal garab yi Ngor Seye Mouhamed moo leen soxla garab yeeg seen reen ne ba cëpp bu dékku tamshi ilayhi bila saaqi moo tax mu wax way waykat bi wax ni yërënt bi même garab yi wuy si dañ ko ci wooteem même garab yi wuysi nañ ko ñëw sujjóot ma ñëw foofu sëñ kii sa cheikh euh, Mouhamed garab yi wuy si sidna Mouhamed dubb euh, kii zabia muy kéwél kéwél wax yent yàlla Mouhamed nangul ko kéwél mbëtt wuy si wooteem mbëtt boo xam dañ ko ko dañ ko rey rëbboon rey ko ba gejj ko mu am une semaine ba mu wow waa ji man dii nga fekk sang bi taxaw ba ne ko su ma la gëmee rek sama mbëtt mii sama géej mbëtt mii moo la gëm sang bi teg loxoom bi ci kaw mbuus bi nga xam ne foofu la def la def gejj mbëtt bi na salaamu aleyka ay haddab man ana nuyu naa la yow yow yow mbëtt bi man may kan mu ne ko ant rasulullah وأنت أفضل خلق الله كل من آمن بك فقد نجا ومن كفر بك فقد هلك وهوى أنت محمد رسول الله لبيك وصابيك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله مايكن نكو يو ياي كو خام كيب كول ويسي تخيا كولا غانت الكونا يا غن كو يالا من دي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله fanzur ila samsi ah isru dat li daxwatiha ko koy samaam maa ngi ñëw ci jant bi waaye mbëtt bi borom mbëtt bi ne ko way xa way xali toskere ñeel na ma man ma rëbb la une semaine gejje la nga njëkk maa dugg ci islaam nga gës bu mu nekk sama sëriñ moom mi nga xam ne moo rëbbi woon mbëtt bi mbëtt bi sëriñam ndax mbëtt bi moo ko gës bu ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam balaa jant bi jant bi rëy na ma wax ko yow ci tuuti yi nga xam ne ñun dañ koy xeeb jant bi kilifa la weer bi kilifa la mais yii nga xam ne ñun ñoo leen napp ñooñu gën ñoo xam yontu yàlla muhammad moo tax yontu yàlla nuux alayhi salaam bi mu wootee junni at di woo doomu aadama yi ñu lànk junni at mu xëy yàlla ne ko tabaxal gaal dajal gaal mu daj gaal mu ne ko pare naa mu ne ko woowal bàyyi ma yi nga xool na ñu wuteeg doomu aadama yi mu woo doomu aadama yi kaay leen yéeg sabote ko sabote gaal gi yàq gaal gi patti fa sobe yàlla ne ko woowal bàyyi ma yi woowal rabu àll yi mu woo ñoom gaynde ñoom bukki ñoom xar ñoom béy ñoom nag kaay leen yéeg gaa yi jëkkante mu ne yàlla lii lan la ne ko xoolal nga woor doomu aadama yi junni at ñuy lank benn yoon benn bëccëg benn heure nga woo bàyyi ma yi ñëw si la xool bi différence moo tax nit dana yar xaram ci kër gi fekk xar bee waliyu bi mu may mu may wayu bi dana yar xaram ci kër gi laa doom wala mu mu tudd laa bale bale wala euh, asuwaat fekk boobu xar mooy waliyu bi moom mii borom xar bi mooy wëyyu bi yàlla xam na ko ndax xam gi ñu xam yoon rasulullah waa ji amoon xaritam am xajam génn dem tukki ñëwaat xaj bi dogale ko mu foog bi ko xaj bi dogalee xaj bu weex la mi ngi xonk ak deret mu tiit yaakaar ne xaj ba dafa lekk doomu jàmbur wala béyu jàmbur mu daw woo soxna si wuyu buy ko mu tijji bu néeg bi fekk fa soxna si ak xaritam doon def naka su dul noonu xaj ba fekk leen matt leen ba gaañ leen xaj bi fiir sa addinaam tukki soxnaam xaritam xajam mu ne fii lii foog ma bind ko nettali ko ñoom Cherif ci la bindee mbind bi àgg si ñun mu nettali ñu ko mu ne maa zaala yara zimmati wa yaxuutuni wa yaxfadu ahdi wal xaliilu yaxuunu fa waa ajaban lil xilli kayfa yaxtiku xurmati wa waa ajaban lil kalbi kayfa yasuun mu ne xaj bi ma soo dañ di ma wër di ma saytu may yor ngay dox ma lekk ba suur nga doog a lekk ma fanaan ci biir nga fanaan ci biti waaye nag loolu yëpp ñetti fan yi ma la yar nga sàmm googu kóllëre nga toppatoo ma sama xarit bi nga xam ne mosumaa dox mosumaa war mu dox ñooy war a warandoo mosumaa lekk ba suur mu doog a lekk ñooy lekk ndo yére ñoo koy nuruwaale sa kër bu ma am tey moom lay fekk ci sama kër kaw soxna mu may wor di ma trompé

te am na yoo xam xaj jomb na ko moo tax bi yënt yàlla muhammad alayhi salaam woote mbooleem jamaadaat yi dañ ko déggal mbooleem li yàlla bind nit dong ak jinne ñoo lànk pour wax la te yàlla nee na ko laqad jaakum rasul min anfusikum azizun alayhi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نلقت جينا من سن بروم جاءكم باتو جاء أتا بنا جاء مغنفور جيتو أتا جئت مغنفور مرا مولم لنور يالله baatu jaa lay andi baatu jaa moo gën a for ataa moom sax moom xaw na woyof ci wàllu maanaam balaa nga waaye amuñu temps boobu jaakum andil na leen yéen jullit yi yéen ñi gëm yàlla rasulun ab yonant bu jóge ci yàlla yéen ñii joomaay mii doog a falu te toogut ku mu yónnee woon ci yéen ab leetar ñu àmbale ko balaa nga am jàmm danga ko daj te moom defagul dara tojagul fenn <laughs> yàlla na ko yàlla may jàmm nag waaye defagul dara tojagul fenn bu la yónnee woon leetar léegi-léegi balaa jant bi so balaa nga naan ndox di nga lijjanti la ci biir te yàlla jox la leetar jox la alquran jox la sayyiduna muhammad lijjanti ko sax la ilaha illallah wallahi la ilaha illallah ba modu ñang na la ilaha illallah wax len ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi ke man la ku muy yemul rek da nga am problème yalla yoni sirna muhammad xol ci xol xol sa xol ci mi ta sama diya bi eh eh japp len ci way Hmm? jërëjëf ok addee bi yonent bi am ñu ko joxe laaj ju leen ko saafara la ñu ñu ngi ñëw seen bataan laaj ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw baax na ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñëw nañu ñëw nañu baax ñëw nañu ñëw nañu ñëw nañu ñëw nañu laaj ñëw nañu ñëw nañu jërëjëf ñëw nañu ñëw nañu ki kenn kenn laajul leen yàlla fay leen yiw jërë ngeen jëf te boo joxee xaddee yonent bi te kenn laaju la ko loolu médicament la garab la ku may yéene nga wér rek naa la ci may <laughs> ku may yéene nga bari la xaalis naa la ci may waxuma nag mu jóge fi ngeen dara ba nangu nangu seen addiya insha allahu rabbi والله ديسان سيدنا محمد يلا ني جاءكم رسول نيو صوب يلا يلا نام تبركل رسول يونت بو خم ماكو يوني جاءكم يوني سين عندي ولي تيري تي يونت بو من انفسكم تيين لا بوك دو ملاك دو جين دو رب نيت لا كوم يين خمنا جوخي ديبانس خمنا غاز بو جيخ xam na facture xam na facture ndox xam na problème yi ngeen di dund min anfusikum foog mu yërëm leen ndax li ngeen di dund lay dund yonent yàlla Isa baax na lool waaye du solution ndax xamul facture courant lu ma jar xamul canu sëy lan la am na ay mbir xamu ko xamul xaru tudd xamul xaru tabaski te yooyu ay problème la yoo xam ni ñoom moomu dëkk fokk ñu am solution mooy Seydina Muhammad azizun alayhi ma anittu yonent boo xam ne lépp lu leen dal ci coono métti na ko lu leen dal ci matadi ma bachas ci suufe métti na ko lépp lu leen dal ci xeetu jàngoro métti na ko tiis na ko lépp lu ngeen di li ngeen di jànkoonteel ci wàllu jafe-jafe àdduna dund métti na ko ndax xarisun aleykum bil muminina daf leen a bëgg lool ba xërca yéene leen leeru ngëm yàlla dund yàggul dund bu gàtt bi ñu am boo fi dundee ba dee yàlla foo jëm fot nga jëm kan ngay dajal ku koy lijjanti yaa awañan gàcce ngaalama aji bi toog fii léegi jàng alxuraan fa tabaarakallaahu soo ko dee xool ci jëmm maa ko sut waaye ci xel bi mën naa moom moom sut sax ndax la mu jàng fii góor ñu bari bala ko joxoon ni ko jàng boo demoon ci jàkk yi nga ne ku tarewul lii ñu folli la di nga folli imaam yu bari man maa la ko wax ku mën def loolu am na loo xam ne noonu la doon naa wax ni am na ween yoo xam ku ca nàmp doo weddi yàlla foog nga sell te moom macha allah mu bokk ci ñooñu teg ci nag mu ne fa in tawallaw malgré tout su ngeen néegee woon yontu yàlla mu xamat gannaaw ngeen ne ko du muyu ñoo soxor sang bu toll ni nga dundu ak mom jamono bokku ak mom jamono digg wootem te bokku ci njabot fa in tawallaw su ngeen amé ay xolu xeer xolu wagn yu ñuul xolu kañaan xolu coxorte ba neegul leen top sang bi ngeen añaan ba añaan seen bop nit dana bañ bopam añaan ba añaane bopam ndax ku top yonent Muhammad alayhi salam sa bop nga añaane ndax boko top, du yok yonent bi dara mais yow mi ko top ya yok ndax harisun alaykum bil muminina mom mo la bëgg rek bëgg nga texe bëgg nga gatchel say non don da wax ni ku bëgg gatchel say non yaral sa njabot ku bëgg gatchel shaytané yaral sa njaboot mbaa nga yar sa bakkan diggante boobu jaa al arabi ila qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam benn arabi yi ñëw na ci bàmmeelu yonent bi di ziyaara di wax Omar ne fa jiitu wa waqaftu xilfatahu wa ansatu ilayhi ma ñëw taxaw ci gannaawam di déglu li muy wax di ko espérer di xool lan lay wax مانكو خوا خيب نك داخ جيري موسل مني فسميت ويقول ما دغ منان اللهم يلا هذا قبر حبيبك يلا كي موي سبب ميرو سبيبي سيدنا محمد والشيطان ادوك شيطان موي سنون وانا عبدك من سجام الله جئت اليه دما نيو سبب ميرو سبيبي اتوصل به اليك may ñaan jox ko ci barkem jëm ci yow di ñaan di tax li la pour nga jégal ci barkem fa in ghafarta li yalla bo ma jégalee surra bi zalika nabiyul akram bo ma jégalee sagal nga sa soppi bi ci yàlla muhammad da ci bëgg lool kontan ci ndax man soppem la wa yahzunu bi zalika al la'in al aghwar shaytan patu bon bobu dana am gàcce dana am gatché دنا اشك ناه جيغل نغا ها وفاز عبدك سب جامبي داي تخي داي ام شانس وين عذبتني با مو مغلي نك ناه من نيما دوي دي سر بذلك ادوك لولو داي بيكلو سا نون بي دا فاي سغال سا نون بي شيطاني داي كونتان ناه ساغو موي نغا مغل خيت يونتبي wa yaxzunu bi sa soppe bi di Muhammad alayhi salaam dana am njaqare parce que mbuggal nga kenn ci njabootam soppe wa yuhliku ah abduk sa jaam bi dana alku ne yàlla xaasha bi majdika yàlla ëpp nga yow ci sa mbaax ak sa teraanga ëpp nga di gàcceel sa noon di bégal ëpp nga di gàcceel sa soppe safurullah ëpp nga di gàcceel sa soppe Seydina Muhammad ngir bégal sa noon seytaane inna inna saadaat al arab sangu arab yi ida maata minhum aat bu kenn ci ñoom dee woon a ataqu abidahum inda qabrihi dañ doon libéré goreel seen jaam yi ci bàmmeelam ku nekk ku am sa jaam am kenn ci ñoom ku faatu ci ci nombul yi ci sang yi ku nekk dangay ngay goreel say yenn jàmm ngir wane ni ah ñoom dañoo nombul te ki ci ñoom la bokk mu ne ko wa haza sayyidul alamin te borom bàmmeel bi mooy sangu mboolem loo bind borom bàmmeel bi mooy sangu mi def ya fa aatiq nii min an naar yàlla ñaan la yàlla na ma goreel ci safar ci barkeem فالصاح عمر عمر دا فاي يخو كو ديغ لي يخو رك امنا خاو والله دا فاي يخو جوي فالصاح وبكى حتى امتلأت لحيته دا فاي جوي يخو بغ سيكي بام توي دي دي دي دي دي دي سيت ملني ندوخ خبتي كو دا خاي جوي من اللهم وانا وانا كذلك ادعوك بما دعاك حضر ربي يلا من تم لي نيان ليلا arab yi ñaan ñaanee naa la ci lammiñu arab yi kaw kaw bi nam la ñaane ñaanee naa la fa nax ñun tamit ñëpp maa ngi ñaan yàlla ci barke borom bàmmeel boobu ñun ñëpp yàlla jéggal ñu yàlla na yàlla jéggal yaa Kani Diop yàlla na yàlla jéggal yaa Awa yàlla yàlla jéggal yaa Aïda Samb yàlla yàlla jéggal yaa ah, bisin Bisin Diouf ak suñu yaay yëpp ci barke yéen Thierno Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ah. ak Ndiaye Ndiaye mu nga dëgg ak njaay mi nga xam ne moo doon garde kii euh, école bi fu ngeen ñëwoon man a yéen man maa waxoon ngañ ne ko na ngeen ko boole ci hommage yi ba ko fàtte jërëjëf kaw euh, yaay may Ndiaye moom na ko yàlla yërëm xale ko aljanna ci barki yent muhammad sallallahu alayhi wa alihi maa ngi gërëm baax nag farsi mii di nimchat moom mooy wax dëj yu bëree bëri même dëju yaa awa ñang moom ko waxoon moom moo waxoon dëju yaa awa yaa kii kànni moom moo waxoon dëju njaay moom juuf wa d'accord yal na fekk wa ah eh, andi won bari na lool ci bi waaye comme dama fi am ay gan ñu ngi fi ban heure moo jot dam fi am ay gan lan quatre heures trente trois voilà cinq heures léegi mu jot am naa fi ay gan Chérif mi ngi fi suma nijaay bi Thierno Baro mi ngi fi ah Cheikh Mohamed Samb woygul dara ah voilà te bëgg naa mu woy ko ndax maa ko waxoon ne ko foog nga ñëw fii sa koñ la at bu jot bu ñëw yu njëkk yi sax doog ko wax waaye mbaa daawul romb bâche bi bu romb gis rek dégg sama baat taxaw ne ñaaree tax benn mooy shérif ni ci bas bi beneen bi mooy sama dëkkandoo yu baax yi jaaw añam ah loolu nag di ay jikko yu am solo c'est normal trono yonent bi nga c'est normal yow yonent bi la nga am ci moom ku jël ci yow waxoo da jeex sax waaye ah ku nangu ku nangu tur bi nangu sant bi nangu baat bi nangu lépp ak sañse bi. <laughs> wallaay ndeysaan dëgg la ma maa waroon ñëw ne waxtaan ko ah, waaw waaw man ak yow toog na noonu moom maa ko léeg de san wallaay yar yarande moo ki rek tension kii yi wallaay dëgg la man maa war a ñëw jël fa kàddu doonte cinq minutes la sax ah wallaay dëgg dañuy ñëw dañuy ñëw ah kii fii daaw mu fi ñàkk ñëw ñëw doon naa fi ñëw ci commencement ba fekki ko sang bu baax ba Cheikh Maye Samb bu ma ñëwee mu jox ma cër lool bu baax macha allah ku bëggoon lool yal nako yalla yàlla xare aljanna ci barke yonente salam yal nako yalla yokku ah ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla fay yalla fay yiw eh, muy bobu est-ce kan <laughs> kan kan naka ñëw nga est-ce kan kan eh, kan kan est-ce ah mon de andina ma andina ma original bi nak ki ki ki est-ce que walaay ndeysaan macha allah أنا مو أنا مو أورجينال ولا إنسان تبارك الله جعجف ما شاء الله كان كان آه، سكنا في أمنا بين إيمتي بوخ ماك إيمتي ماي متي متي متي متي شريف ماكو تليفون نيكو عبد الكونفرنس نغي نيو تي ياغ نيو اي ما شاء الله دي گرم كو تيو دي نيال نيب يالا بغون نا واخ لو اپ لول واي يك نا لو خامني سما كونتيني دينا في جوي wala ma am problème te bëgguma mu dem ci dem ci dem ci télé bi parce que yow sentir naa ko sans daa mel ni kon fii laa yemale kàddu yi bàyyi ñi des ñu àggale ko mu ma yem cheikh euh, Mouhamed après nga àggale yàlla na nu yàlla may jàmm bu leen fàtt nag ni jànguñu xatu alxuraan bi war nañu jàng xatu bu sab yàlla kii suñu doom suñu doom na Chérif Ibrahima Aïdara ñu koy nee di ko ziyaara ñi fi jiitu la bokk Chérif Sidi Ahmed ak ñoom Abdou Aziz Yaya ñoo xëy suba gi ma leen yebal fii ñoo ñëw jàng kaamil bi bi may génn la dee ak ñoom ñu ne xale yi ñoo war a jël ay leçon daara ja ah te ñoom xam nañu ne mel ci wàllu jàng ñaar ñi laa ci jukki ñu ñëw ñeen ñi continué jàng bi daara ji dañoo war a jàngale dañu nuyu ñëpp jaara ñëpp wa hada wasalaamu aleykum ah waa après wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kaddu yi jox ko Chérif Abdoul Wahab bu noppee ñu àggale